merci merci de rester fidèle au programme de la radio du bonheur ñëwaat nañ samdi ak seen émission Rewmi People cette semaine nag ñu nar ko seek ak nga xamante ni moom la ñu woowee di ko dàkkantale le Baye Fall de la musique sénégalaise moom nag dafa déplacé wu donc cette euh, émission dañ koy def ak euh, moom via le téléphone Carlou di à l'autre bout du fil ñu ngi lay nuyu waaleykum salaam maa bu baax waa euh, ci siyaar bu baax di siyaar ak seen mbokk yi leen di déglu leen topp fépp di ko tàmbalee ci borom kër gi nee nañu kër boo fa duggee da ngay nuyu kilifa gi donc day président ma ñu di leen di leen ñëpp di leen di ci invité merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cette émission comme toutes les semaines euh, ma koy co-animé ak sama consoeur bu euh, euh, Rewmi Quotidien ana Thiaw mm. lu bees namu naa la <laughs> Maalo raw euh, Carlo alors euh, on va commencer l'interview léegi euh, on arrive présenté aux, auditeurs euh, qui est Carlo qui est Carlo ah, Carlo Carlo Carlo doomu réew artiste musicien chanteur auteur compositeur voilà foofu laa mën a yem a gum quoi ba li ngeen bëgg ñu alors man ma première question mu ngi ñeel wàllum actualité parce que euh, pas plus tard quavant président de la république donc gis nga décision bu mujj bi mu jël. ñeel euh, donc euh, état d'urgence bi mu ne def ko lever yow ban appréciation nga ci am parce que bëri na nit ñoo xamante ni bon les les les les réactions sont mitigées et divergentes yow fan nga ci taxawee. bon nit moom kenn du ko jiital ba noppi di ko bakkatal. réew mi ñu nekk ak réewu Afrique yi <clears throat> seetlu bi ma def mooy souvent dañuy jiital kilifa ba noppi di ko laaj ba noppi di ko jox tontu je que moom moo ne ci bopp réew mi et dajale ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci jëm ci li daal sunu kaw muy mbas mi je pense di avertir bu ñuy wax li war ak li warul danger yi ñu toll situation beeg lépp moom mooy la première personne di nekk au courant ba ñuy ñoom ñu jot ndigal ou pas yaatal ko ni ci dégg ko ou pas donc su jëlee responsabilité c'est son devoir aussi yee nit yi mooy nekk na ko wax et puis def yaakaar ne moo gën ñu ànd jàpp ci ne moo gën ndax mu bañ benn benn problème. d'accord alors en tant que porteur de voix tey jii ban message nga am ci population bi parce qu'on leur dit que instant yi la balle est dans leur camp ban taxawaay lañ war a am comment est-ce qu'elles peuvent prendre leurs responsabilités. waaw responsabilité yi mooy à respecter déjà respecter les règles barrières et et et mais aussi du porter masque yi que masque yi day jouer un extraordinaire donc il faut ñu continuer di sol masque yi partout et continuer aussi def suñu maay virus bi mu fi ba léegi bougewul et dañuy sant yàlla africain yëpp gis nañ nekk ñoom même européens yi nga xam ne dañu ne seen xam-xam moo gën a màcc ci feebar yi te ñoo gën a yore effectivement matériel bi wane ne que ñoo gën a noppi ngir jànkonte xeetu jàngoro yu ni mel mais boo xoolee Afrique position bi ñu am avantage ñoom amuñu ko ci tey ba ñu def jàngat boobu ba ko ñu toog di xaar loolu rek war naa tax suñu gën a defaraat suñu toogaay gën a taxaw gën a farlu ci fi ñuy xaar mm-hmm. bañ a bañ ñu bañ fa yegg mm-hmm. boo xoolee ci deux mois lañ doon wax léegi dépassé nañu cent ce qui mu ngi fii que mu ngi progressé maintenant il faut ñu gën a ñu gën a ubbi bët yi te gën a farlu métti na nag trop parce que balaa ngaa laax gars yi balaa nga naan naam defa gars yi gafaka yi lañu gën a bàyyi xel ci wér gu yaram yi ndax balaa ngaa tal sa wér gu yaram lekk ba suur effectivement mm-hmm. mais nag nag gën a góorgóorlu te xam ne kenn gën te metti la ku nekk na nga jàppale ni mu méttee ci yow noonu ko kenn nan ko jàppoo la ci jàngoro yàlla ko fi indi dañ ñaan ñu jële ko fi indi ñu farlu suñu kéem kàttan voilà. ma bàyyi la euh, euh, maintenant on va parler de musique. Euh, gis nañ ne que Carlou euh, côté musique c'est pas seulement euh, le hip-hop le blues l'afrobeat euh, qu'est-ce qui explique le fait que vous soyez très varié côté musique parce que je je je je j'écoute du tout. Tout à l'heure là je parlais à un il est juste devant moi. Il m'a posé la question à savoir euh, genre euh, qu'est-ce que mon père écoutait comme musique je disais que mon père écoutait du tout. Je pense qu'il a beaucoup influencé euh, ma carrière parce que je fais du tout, j'écoute du un peu du tout quoi. donc je pense que loolu moo gën a expliquer le pourquoi Carlou il y a une musique très très variée. Euh, euh, comme vous le savez Carlo instant bi ñoo ngi ci benn contexte de pandémie à savoir le coronavirus et gis nañ que tous les secteurs sont touchés notamment euh, le vôtre le secteur de la musique léegi ban impact euh, cela a pu avoir dans vos projets ah, l'arrêt l'arrêt carrément ñun ñëpp taxaw di xaar gars que financièrement les artistes sont fatigués d'accord. Oui. mais le plus difficile, parce qu'en tant qu'artiste, des moments pareils, c'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer sur scène. Ça, c'est très, très difficile à gérer en, en, pour un l'artiste euh, exprimer sur scène, voir qu'il est là, il est toujours aimé, écouter, il a l'attention de son public, il, le public, on demande tout le ce qui motive euh, recherches. musicalement, textuellement, et quand on n'a pas la scène, quand on n'a pas la possibilité de bouger, de jouer, l'artiste est malade, il est Là aussi, il faut pas l'oublier. Voilà. Euh, d'après mes recherches, euh, Carlo a eu une enfance très difficile. C'est d'ailleurs ce qui vous a forgé. Est-ce que c'est vrai? Ah, comme tout le monde <laughs> enfance moom benn benn yombul mais c'est vrai que sama bos quand même mën nañu tànn ci enfance yi gën a gën tar ndax bugguma di ci delluwaat je pense que ñu am ko dama jàpp ne ñëpp ñëpp seen enfance benn yomb ndax li may wax keroog rek kuy Sénégal réew mu méttee ne ndax dañu am ay gëm-gëm am am éducation am ay valeur yooyu nag li koy li koy li koy may doole ci ci ci doomu aadama bi nga xam ne Sénégalais la mooy yar bi ñu suñu parents yar ci mettital ci xañ ci puus ñu ñuy muñ yu bari ci loo bëgg doo ko am tout le temps lépp loo xam ne war naa mën a yomb nga de enfance contrairement éducation wu euh, yeneen xeetu nit yi maanaam tubaab yi nasaraan seen ñoom xale lu mu gën a soxla rek dañ ko ko yombalal fii nag ñun loo gën a yittewoo même bu dee ñoom ñàkkuñ ko dañ la koy jafeel ndax nga mën koo wut boo màggee donc loolu je pense que du man kese waaye képp ku yow ci réew mi ñoo bokk éducation boobu. d'accord euh, alors Carlo dañuy faral di dégg ni comme quoi euh, vous n'avez pas fait de longues études et pourtant euh, votre personnalité en dit le contraire est-ce que mën nga ñu wax tuuti euh, par rapport à ton à votre cursus scolaire et le secret de votre réussite. Oh, xam man moom j'ai arrêté l'école euh, en quatrième jotuma jotuma def secondaire bien sûr mhm. mais bon moi je suis je suis curieux nag xaw ma yooyu je cherche je me demande je suis tout le temps en train de euh, de fouiner quoi tu vois donc ça peut être boosté un peu euh, l'expérience et voilà mais bon ce cas où on bon niveau non pas tort. Mais bon, quand même, j'arrive à me débrouiller. Mhm. D'accord. Est-ce que est-ce que tu regrettes de, de n'avoir pu aller trop loin dans tes études Honnêtement, bon, des je me dis, j'aurais quand même pu pousser peu plus, rester un peu euh, plus. bon, des je me dis aussi, c'était le bon moment. C'était le moment de bouger parce que c'était urgent. Il ah, fallait, il fallait que je bouge. Euh, pour aller bosser, soutenir ma famille, ma maman, ma soeur et mon frère. Je me suis battu comme comme un bon garçon. <laughs> Et voilà, je suis maintenant je suis de famille. Je ne vais pas je pense que chacun a sa route, chacun a son destin, son chemin. Voilà, je ne regrette rien. Euh, Carlo, parlons de personnalité. Les gens, ont tendance à dire euh, Carlo au premier abord, c'est quelqu'un de d'otain, quelqu'un d'arrogant. Est-ce que c'est vrai. c'est ce qu'ils disent daanu ma ko sax dañ ma xamoon buñ ma xamoon te je pense que wax nañ ko sànq bi ñuy tàmbali dama timide moom kenn du ko wax boo xasee wax sa bopp timidité amul amu fa mais dama nekk nit boo xamante ni su ma la xamul du ma mën a bàyyeeku sa kanam et puis du ma mën a seq ak yow lu bari prudent et parce que sama sama sama vécu moom bu ku ma gis rek dugg ci balaa maa seq ak yow yenn il ma xam yaay kan te war naa seq ak yow mais nag dommage loolu jikko la yoo xamante ni yore Sénégal dañ lay catégoriser ñu nekk kii dafa toof wala dafa dafa wala dafa am lu jaay dafa am lu ñoo di ce que temps ce qui me concerne dañoo kàllu fuuy dafa réew dafa jaay la parce que c'est pas le cas c'est juste que c'est ma nature ni la mel c'est dommage bu mënoon nit changer nature ci pour que voilà yi ñuy dégg du ko mën changer nature c'est dommage D'accord. Alors euh, timidité c'est sûr que ça ne rime pas avec euh, une casquette d'artiste ñu ni boo yéegee ci scène beneen nit ngay doon tu te défoules tu es un quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu prends euh, quel est ton secret ci volet boobu waaw mais l'artiste ce qui logique hein li nga wax ni timidité ça rime euh, euh, artiste c'est vrai parce que Carlou D c'est c'est c'est la personne sur scène c'est l'artiste maintenant l'autre euh, il s'appelle Ibrahima Loukara il a sa famille il est sénégalais humain il vit comme tout le monde voilà c'est un comme tout le monde quoi mais une fois sur scène Euh, là, c'est Karoudi, c'est Ibrahima Luka. Donc, ça veut dire qu'effectivement, Artiste, rappeur, compositeur, guitariste, en même temps musicien, comment tu arrives à faire tout cela Je dirais euh, mhm. chanteur. Parce que sont les musiciens, les chanteurs, rappeurs, tu dire. Mm -hmm. euh, monde parce que c'est une histoire de génération je démarrais avec le rap maintenant jouer sama rôle ba santé nekk là je dois améliorer je dois chercher je dois élargir je dois pousser un peu plus donc mënu ma woon garder que casquette rappeur euh, pour développer tout cela il fallait que ma euh, revoir euh, sonorité bi may bouger mhm. la musique rap développer dugal ay instruments traditionnels yokk harmonie euh, di di di chercher à développer toucher le max de euh, euh, possible et voilà voilà maa maintenant maa carrément à fond dedans mmh. alors avec une certaine dose de de de talent de danseur passion boobu fan la la jëlee ak aussi talent boobu noonu. Euh, comment tu as fait pour euh, acquérir ko. bon je pense que mënuma expliquer fan laa jàngee c'est comme mënuma l'expliquer fan laa jàngee donc honnêtement c'est comme xale bu dogu juddu su lekk jotee day lekk su nelaw jotee day nelaw. Mhm. ça c'est des choses malheureusement expliquer c'est humain c'est c'est c'est c'est c'est c'est spirituel su nekkee si yow léegi kenn moo war a génne donc euh, voilà je pense que noonu la demee quoi. c'est Carlo, gis nañ ne que lors du salon international de l'artisanat de Dakar vous aviez mmh. euh, bon disons que vous aviez dit une parole euh, quand vous chantiez euh, il n'y a pas il n'y jamais deux sans trois léegi du coup euh, ça fait un buzz si je peux dire comme ça léegi nag euh, wax boobu lan lay tekki les gens ils aimeraient savoir si euh, ndax da nga far côté Macky Sall ou c'était juste dit comme ça, dans le feu de l'action Bon, je ne sais pas, est-ce que l'humour euh, l'humour tombe là ou je dois taper, mais bon, je pense que pour Jorlen, c'est un journaliste, acteur, nous, nous commençons mooy respecté ku nekk liggéeyam et je pense que sur les questions yi ne noonu war mooy tontu la. c'est juste que dañu nekk si dëkk boo xamante ni euh, mbër du fi màgg mbër du fi am doole ci dommage loolu mooy suñu loolu mooy suñu suñu destiné donc euh, waaw falaa ñu def avec léegi rek maa ngi dégg suma benn xarit woo ma mm-hmm. euh, depuis France di ne ma que dafa am dafa am ku ko woo di kaat nekk mm-hmm. la moo tax koy jàppale Carlou parce que Carlou dafay jàpp Macky voilà la preuve baa ngi nii et maintenant pourquoi nga koy jàppale moom ma ne sama xarit bi de toute façon man cette personne je la connais mhm. pas du nit ku ma xam mais gis naa ko il a eu à s'exprimer réseaux sociaux pour sa position par rapport à cette histoire là maintenant li mu wax mooy bu Carlo waree jouer Paris bu kenn dafa dafa def erreur parce que li ñuy annoncé concert Paris bi man signé gu ma sax Paris signé wu ma ko annoncé wu ma ko te il est au courant ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui bouge dans le milieu bi euh, may bi may bouger si c'est le cas mooy objectif am il veut juste saboter ce qui n'est pas nouveau maintenant est-ce que damay répondre ci question bi wala dañuy delluwaat ci question fra Carlou franc-maçon la wala damay tëb boobu zappe on oublie c'était pas vrai on zappe à chaque fois que ñuy taxal nit ci quelque chose bi ñu xool conséquences yi c'est que ça peut créer comme dégâts dans la vie de l'être avant tout du père de famille de l'artiste du responsable du chef de compagnie non duñu ko duñu ko science li ñu bëgg au moment bu ñuy génne que mu def li ñu bëgg mu def je trouve ça pitoyable. mais est-ce que loolu amul lu mu bouleversé ci ci sa entourage familial. non amul lu mu sama entourage familial waxuma la familial mais ku ma xam rek xam bu ma ñu déggee wax bu ñoom seen bopp ñoo naan leen ñu wéru parce que li ngeen di wax c'est tout à fait le contraire de la personne bu ñu ko connaît. Mm-hmm. mais li may wax le danger et c'est pour cela moo ñu koy def bu ñuy wax loolu si nit ñi yàq. c'est pour que ki nekk fungaleen bi bëgg nit bi amul moyen wu gis ko pour que le gars s'explique mu gëm li ñu wax c'est tout ils sont là pour pour détruire la vie des gens quoi et sans sans sans raison nag à moins que ñu ñoom rek ñu xam la raison pour laquelle ñuy def yenn yi mais non pour revenir à la question DER tax ma DER tax ma woo ma ma ñëw jouer remise wu yenn euh, fonds yi mu jox yenn nit et que le président dafay dafay dafay présent maintenant bi ñu ñëwee def vidéo bi DER jëkkati président yi trente milliards jox ko DER pour mu aider yenn nit yi Sénégalais comme moi je pense que loolu dañ ko war a saluer wala dañ ko war a ignorer ñu ma gis ci salle bi ñuy profiter ci aide bi c'est de Sénégalais des petits frères gis naa ci kuy jaay muuraake maintenant entreprise am la di ci mais di def des choses extraordinaires juste parce que aidé nañu ko par rapport à ce budget là donc su président taxawee dinañ ne ko mais félicitations yi gis nañ li ngay def rafet na man suñ may woo ma ñëw jouer kenn du ma ko nekk di di waxaale waxaale yu dul jeex tu vois bu bu président war a woo war a ñëw nga war a elle lay laaj ñaata ngay jouer wax sa sa tu viens tu loolu c'est un signe de respect boo xamante ni artiste bu nekk bëggoon nga di ko am à chaque fois kenn du la sonal ak waxaala yu dul jeex c'est un signe de respect soit deuxièmement bi mooy li may gis président Macky Sall je te dire la chose et c'est bête que képp ku si waxoon wax boo mën a wax boo déggee explication yi tu dois te sentir bu fekkee yàq nga sama der ma ko mhm. li may gis président troisième fois ma koy gis benn bi der moomu woo beneen bi der moomu woowaat troisième bi sama maman moo ma woo ma dem jouer ko euh, j'ai oublié le nom mais bi ci médecin yi ñëwee on était même au palais tu vois sérieux ma ne ko c'est c'est la expliqué que c'est c'est il a jamais deux sans trois c'est la troisième fois ñu tase et que sa nguur dafa neex non seulement suñuy woo on nous respecte mais non seulement li ngay def pour nit gis nañu ko c'est du vrai du concret c'est là c'est trente milliards destinés à des personnes yoo xamante ni du propagande du dara c'est des gens yu nekk ci banlieue bi mais des professionnels ci ay domaines bien illustrés parce que te wax la boo xam ne dañ ko wax ci saal ku nekk def nit pourquoi nga teew ci saal bi ñu fa dem mais la personne bi jël vidéo bi filmé juste à partir de fi may wax li mu bëgg en tout cas li ñu ko gis li ñu koy ko attention. Mm-hmm. seulement seetuñu ko mais wax naa ko ko mais néanmoins il l'a fait parce que li mu bëggoon mooy you know ñu gis loolu il pense que su ko defee mën na yàq sama carrière mais il se met le doigt dans l'œil quoi mhm. su ko je trouve ce que je trouve dommage mooy pourquoi ñun ñu mel nii la moo tax au lieu ngay jël sa intelligence temps énergie concentrée pour détruire une personne loo dem nga jéem a def comme moom wala nga def plus mhm. pourquoi bonne question les balles, c'est pitoyable, mm -hmm. franchement. D'accord. amis auditeurs oui allez-y allez-y. mooy c'était le moment bi ma ko def après lool la ma sama sama entourage wax. Mhm. parce que man du ma déglu information du ma déglu information parce genre yu demee nii moo tax. on m'a dit au fait tu l'as dit au moment boobu loolu dafa tàngoon. moi j'étais pas au courant. ay <laughs> suñu borom <laughs> seede na ne j'étais pas au boo ma mhm. xoolee jege ma di nga xam ne que man su quelqu'un am na lu dul guitare sound studios podium spectacle du ma ko dund. si may wax ak yow ni voilà. c'est compris euh, voilà. Amis auditeurs, je rappelle que nous sommes avec le Baïfal de la musique sénégalaise Karloudi Ibrahima Loukar de son vrai nom. Mhm. C'est ça. Exactement. Mine de rien, tu as sorti huit albums bu ma juumee nga gàgganti ma. oh sept je dirais. sept. lequel a a eu ou bien a connu le plus de succès. artistes yi nga xamante ni dañoo am un public euh, fidèle. Mm-hmm. cest à xamante ni public bi day changé. donc bi 2004. moom moo ñu topp ba tey su yokkuwul du du du wàññeeku. même bu ñu amatul seen situation permettre tu leen ñuy suivre l'artiste comme au début ñu lay bàyyi xel su événement jotee di nga di nga leen gis dinañu def lu ñu mën pour wan leen ils sont ils wax art um, bi art album bii moo gën a marché que bële moo gën a waaw je sais daal que art benn album lañ ci nominé mooy l'album Ndey Joor mm-hmm. et que moom bu benn yoon benn award moo fi amoon bu crédible bu mu mën a tuddee award parce que y avait la présence de la presse internationale et que ak l'attention du public sénégalais mm-hmm. pour être clair quoi. benn yoon la woon. mbir boobu naan mooy la may di. Euh, amoon na benn moment euh, boo xam ne dañ la doon associé à Akon comme quoi euh, da ngeen waroon def da ngeen waroon collaborer ensemble foo leen ci toll c'est toujours d'actualité. ama loolu aussi lan moom si jaaxal. Akon bu fi ñëw. ñëw na fii ñaata yoon la fi ñëw musuma gis benn ak benn journaliste bu ko posé cette question ñoo dañuy bàyyi Carlou D te Carlou D non seulement bi kenn di wax loolu laaju ko permission waxul ak moom ma toog ci télé bi wax ko sans mon avis sans sama consentement ko même pas au courant pour te dire après bi mu waxee loolu loolu la doog wax ak man te bi mu waxee ak man lu ñu doon euh, négocier et yi ñu doon wax ensemble aussi déglu il avait envie de faire quelque chose maintenant bi may mujj ak des années dem naa fi ba finalement de yónnee ay nit depuis même su ma génnee bu ma nekkee kaaw day envoyé ay nit ñuy dem kaaw di di ma wax que Akane bu faire sa faire actuellement mi ngi fii nee na ngeen tase fële la dernière fois dugal na trois personnes pour responsabilité responsabilité leen par rapport à ce projet ñëpp malheureusement defuñ ko moom ni mu bëggee defe ko woon la dernière fois ay son la ma yónni ne ma que bëgg nga déglu ko xool y pas longtemps mais finalement li mu mooy tu sais c'est quoi le problème ma ne ko mu ne je ne comprends ko le seul problème mooy da nga jël Sénégal Sénégal fi bëgg a def doo ko wax ngay wax da nga def ba pare mm-hmm. dégg gis naa fi lu nekk gis naa fi lu nekk yoo xam na rus naa ko sax toog di wax ne que dund naa ko ci parce que gisuma lu ko jaar mhm. la preuve Akon di wax waxu defal ma album ak di coow li ne pour man maay Bamako di dund sama rêve mooy jouer dans une compagnie d'opéra et j'étais l'acteur principal personne n'en a parlé parce que ça effectivement, on ne peut besoin de ce qu'on pour dire quelque chose ou s'intéresser à quelque chose. Il faut maîtriser que je peux comprendre. Maintenant, lui comprendre, lui se développer aussi, ça c'est un problème. Il faut nous bailler. alors euh, Carlou euh, lan nga ñu mën a wax ci sa passage au PBS euh, avec Awadi DJ. jaar PBS mu nekk moment bu neex extraordinaire def nañu dëkk yu bari liggéey nañu dans la paix et surtout le respect. Mm-hmm. mais may wax ñu ne laa ko wax si rajo bi may bi may dugg ñoom ñëpp ñu toog si benn si c'était monsieur Awadi y avait Awadi y avait Degeti mm-hmm. au début les gens disaient que non dama ñëw pour nangu place au Degeti <laughs> wax naa yuuxu ba sonn si suis pas là kenn gëwuma mais je pense que là maintenant mën nañu gëm nekk euh, c'était pas vrai mais loolu aussi dañ koy maasale kon dootu ci wax comme affaire u franc-maçon bi moom sàpp ngeen woy woote ko toogee ci néeg bi daal Numu Kundaa ngi fa woon mi ngi fa woon mi ngi fa woon Baye mi ngi fa woon Saf Ñaam ngi fa ak le manager Lotaire ma ne soo may dugal ci ci groupe bi ñu ne waaw ma ok xaalis neex na voyager vivre son rêve tout ça c'est bien mais ce que veux et que li may exiger c'est juste une seule chose, il ne me donne de respect. Manque pas de respect. Pas parce que je suis le jeune le, boy la banlieue du Dorogne ngaa ko la xamul lu comme manque de respect ne supporte pas. Mm-hmm. léegi ban expérience nga jëlee ci sa participation à l'émission culturelle Oscar des vacances. oh Oscar des vacances li ma fa jëlee mooy <laughs> voilà Oscar des vacances li ma fa jëlee jëlee ma ko fenn affronter public ak création aller chercher l'attente xam nga li nit yi bëgg gis li nit bëgg dégg loolu rôle la bu extraordinaire bu artiste war a jouer et amul benn école bu ko fi jàngale bu dul Oscar des vacances et dommage yàq nañ loolu au moins loo bañ bañ la nga nga ko ay noppam yu gudd quoi créa créer hmm? euh, affronté public parce que Oscar li ko doon nekk c'est c'est ay plus de mille mille personnes et c'est un public neutre et vrai des jeunes yoo xamante ni amuñu parti pris amuñu fii la ñu far ñu fële ñu ngay def si c'est ok même su fekkee beneen bi mooy fa indi excité dañ lay woon exactement le résultat bi nga def soo toogee trois mois di liggéey nelaw boo ñëwee ñu wan soo toogee trois mois di liggéey ñu toj fi ñu wan la ko même su fekkee faruñu ak ñoom loolu c'est très très important pour chaque artiste buy commencer carrière am alors euh, quel a été le pire souvenir de Carlou loo xam ne euh, dund nga ko mu metti trop euh, par rapport ak la musique wala benn expérience personnelle boo xam ne marqué na la trop. bi ngay bi ngay bi ngay wax c'est sûr que ça même su fekkul sama sama décès mère parce que décès bi ñaar moo ko yor mais bi bi décès bi di am dama def sacrifice bu bu doy waar parce que jour bi nekk ci sukuraat boobu ñu ngi joué CCF centre culturel bi joué prix RFI ak awam li may demee ba yéeg ma sa yaay léegi ñu ngi sonn na quoi j'étais si biti am ku génn je sais pas citer son nom laaj ma c'est quoi ni ko ma il est en train de partir. Et là, je dois monter sur scène. Mhm. Je suis perdu. Imagine un jeune de 23 ans, bu dund moment bi la journée. Est-ce que am na expérience pour prendre une décision? Mmh. Son avenir est la plus grande perte de sa vie. Yoo xam ne ngay avancer ou d'aller arrière. À un moment, je me suis dit, OK, un moment, de toute façon, même su fekkee day il faut mu lekk, il Donc, le gën raisonnable. mooy yëg si scène bi joué après sacrifice yu mel noonu tu te dis maintenant vingt ans ou quinze ans après est ce que jarul woon ma dem au moins a juste son bëgg naa la ou au revoir ou adieu que sacrifier pour des personnes yoo xamante ni non jaru ko woon yéen regret à à part à part à part ça tu n'as pas de regret quoi non à part ça non franchement d'accord mais Carlou amoon na benn son boo xamante ni moi j'appréciais dama ko bëgg mooy fi ngay woowee papa gangster et tout l'histoire c'est venu euh, euh, sa propre histoire la wala dafa am sa proche boo xamante ni peut-être il en est victime ah non non man du ma wooy du ma mhm. man du ma wax waxu jàmbur ma yoon nekkul suma yoon nekkul <laughs> li may woy li may dund la mhm. li ma dund la encore du woon morceau appel téléphonique la woon waaw j'arrivais pas à joindre le Dieu ou les m'exprimer wala ah. que mu ma coupé du monde waratuma sax wax lu jëm loolu parce que loolu laa waxoon naan suñ ma laajee ci si jëm ci damay nekk dootuma wax honnêtement ci wax. d'accord d'accord on vous le concède. Euh, euh, alors euh, leneen li nga xamante ni bëggoon naa la ko laaj tam moo jëm ci sa sant bi. Vous êtes d'origine sénégalaise parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre Lukaar Lukaar c'est c'est c'est ban kii la ban ethnie la. ah je suis du fin ah oui Ndiobène Ndiobène suma mais suma maam bu ma yar nee na ma que Lukaar Lukaar c'est soninké. ça sonne plutôt tubaab ah. waaw si ça sonne tubaab. c'est parce que y a lu lu corps lu lu lu kaar gis naa mm-hmm. yëpp. c'est mais mu non. Mm-hmm. <laughs> peut-être sama benn guerrier la woon aussi doon toj village xam nga. parce que tubaab bi j'étais partout mais il faut que ma jëlee sant bi jaar fa bàyyi fa dara yee. super. <laughs> bon je ne pense pas c'est pas c'est pas ça man daal xaw ma daal fan la jugee en tout cas c'est c'est wolof et puis c'est wolof et puis d'accord alors parlons de la grande royale. Ngaña ñu ne yow artistes yu bëri ñoom dañuy préférer tenir à l'écart leur leur épouse mais ñu gis ne yow macha allah fatabarakallah on touche du bois toutes les démarches c'est c'est madame qui fait cela pourquoi nga am préférence. waaye écoute àdduna moom ay choix la. koy après nga assumé. Mhm. choix bi ma def mooy mënuma boole. takk soxna et ñëw di expliquer chaque fois su ma génnee mhm. ma chaque fois lu ma dugg di expliquer you know je aussi mënuma di laaj loo xamante ni maa ngi koom sama biir kër mënuma chercher expérience ou connaissance ci biti des personnes yoo xamante ni même su ma leen xamee mënuma am risque bàyyee leen sama bopp alors ma nekkal sama kër elle en a les capacités et mhm. l'expérience bon def ko ak moom d'autant plus que sama soxna la et que war na ko mën a taxaw ci loolu ko gën a mieux placé pour défendre mes intérêts qu'elle mm-hmm. donc aller chercher ailleurs c'est vrai mm-hmm. ah. euh, alors euh, ñu fool ci woowu béy tamit que da ko dégg par téléphone rek bardé ko c'est vrai <laughs> dama ko dégg téléphone rek bardé ko waaw daa wax ak téléphone rek nga këpp ne ki ma doon <laughs> seeta ngi kon de yàlla may na ko téléphone moom pas du c'était quand même euh, c'était c'était impressionnant mais bon je pense que bi ma ko gisee laa doog a baar ren pas ci téléphone ok d'accord bëgg nañ xam tam Carlou ah presque euh, vingt ans wala vingt ans et plus d'expérience nga nekk ci li nga xamante ne mooy musique bi tey jii boo doon def sa bilan partiel est-ce que tu es fier de ce que tu as construit jusque wow what a question xam naa ne daal Euh, du ma genre buy retraité. def mm-hmm. na quinze ans de carrière. c'est comme si c'était hier. Euh, plus ngay jàng plus ngay découvrir maintenant li ma war a bàyyee boo yu bari bàyyee naa la ko sama ginnaaw àdduna bu yàgg ba ma wàcc di xëccoo yenn yenn talent yi wala yenn style yi parce que bi may bouger ci studio yi wala bi may jël décision changer kenn influencé wu ma kenn imposé wu man maa toog ba xam ne doy na bëggatuma def la même chose je bouge mm-hmm. def leneen euh, loolu moo difficile à comprendre ou accepter ci carrière u Carlou pour certains mm-hmm. si pourquoi ngay def lii pourquoi ngay changer bi je suis comme pas def lu ma defar def maintenant quant à expresi na non bilan bi may def mooy tey jii li gënoon difficile mooy am attention wu les professionnels de l'autre côté du monde ñun là et dañuy woo di ñu solliciter ci ay projet yu extraordinaire et loolu yàlla li ci des mooy liggéey pour satisfaire cette demande tout en respectant ci ñu li ay sa public yi ñu pour suñu ba ñu toll Euh, Carlo parlant de d'expérience de carrière euh, ban conseil nga mën a jox aux jeunes yoo xam ne ils aimeraient se lancer dans la musique ak tamit ban appréciation ban appréciation ngay def euh, ci la musique actuelle. bon chaque fois euh, benn boy woo ma musique sama après ma door la wax. parce que dama xam ne que musique li ma yaakaar bon d'après expérience ma si xam que musique li ñu yaakaar ne moom la ak li mu doon dafa ute ba tax na ni ñu koy jàppee ci réew mi te fii rek je pense que problème mu génération la ni ñu ko jàppee ak ni musique bëggee ñu jàppee ko xaw na uute ce am ci réew mi ak aw moom mm-hmm. loolu du ma gët xamal ko sam bopp wala lu ma soxla laajte ko côtoyer des monuments nit yoo xamante ni seen expérience may na la wax le en plus un égal deux ba pare defal la preuve te gis ko mm-hmm. maintenant su ma nit woowee loolu laay jéem a laaj déglu la suuf kenn yëgu ko dem Thiès Mbour ba Saint-Louis déglu ay artiste <clears throat> dem seen biir kër ah, laaj seen li ñuy def joyeloo leen ñuy mën a leen bàyyi leen li ngeen di def ki doon fenn ñuy mën a leen loolu mën def def leen ko am ngeen chance ci musique bi ba pare wax leen daf ñëw lu nekk la ci réew mi ak samp parti donc voilà loolu laa yaakaar ne que euh, moom laay partage à chaque fois nit woo ma ne ma dem ba def musique Carlou on imagine ah, vous avez beaucoup voyagé yéeg nga ci seen yu bari tey jii ban nga yéeg boo xamante ni ilal abad yow doo ko fàtte. ilal abad du ma ko mhm. ah, benn scène la woon. c'était vraiment mes débuts. xam nga un c'est un jeune c'est un chanteur allemand qui s'appelle Patrice. def fi benn tube bu doy waar. surtout jamono yooyu c'était la superstar quoi. ñu dem si ville j'étais avec. de des collègues <clears throat> bi ñu yéegee sur scène afin ñu yegg si mu def surprise il y avait plus de mënu ma wax ñaata milliers de personnes en tout cas dépassé na vingt vingt mille ou trente mille personnes honnêtement c'était open et ba ngay xool ba fu sa bët yam bi ñu ñëwee Patrice defal ñu la surprise ñëw débarquer sûrement le directeur du festival moo ko invité mm-hmm. donc il voulait faire la surprise ñëw yegg sur scène et pour ça il fallait que ñi jouer si sur scène et c'était nous ñu yegg jouer ak moom maintenant on nous a demandé gars yi parce que c'est là kan mooy yéeg joué ak moom ku ñu wax yéegal mun na noo yéegu moom ma jóg ne dama yéeg ñoom ça va pas tu es malade tu connais le gars ma ne bien sûr je l'aime beaucoup j'ai son CD chez moi je je l'écoute tout le temps ñu ma dama yéeg ma ne dama yéeg toj fi xam nga rek fugg ñu ne ma waa yéegal ma yéeg ànd ak sama beneen xarit du ma si soxo kora ñu yeeg joué joué le gars déglu ñu mais maa ngi gis bi ñu commencé développer air il était wow genre l'Afrique quoi tu vois. Mm-hmm. ñu développé développé ba dugg ci si am moom invité ko ci pour installer ko ce qu'il a aimé après le public nangu ce spectacle mais c'était tellement extraordinaire une folie moom ne mënu ma ko fàtte suma laay mm-hmm. honnêtement tellement c'était positif comme énergie très bien sa doom ah. bu la ne woon dafa bëgg a dugg ci musique dafa bëgg a être comme son oh, oh, père oh, di nga d'accord kata bi kaw gaal la nga may expliqué instant bi déedéet <laughs> ñoom ñëpp you know ku la si woyal nga ne wo des fois dañ may surprendre mais no way mhm. no way no way et pourquoi pas bëgguma ñu def musique parce que damay musique j'aime pas ça même suma frère naak suma frère pas parce que damay musique da ngay jouer instrument demal nga def leneen ça tu je pense que moom laa njëkk a xool ne ko ci doo artiste boole ma sama papa ñu réunion ma si gàll bi ne ma da nga bañ xale bi you know si histoire da nga da ma leen ok whatever wax lan la neex je pense que su nekkoon artiste man maay sawar si jàppale ko parce que amul lu gën fort deret mais du ma bàyyi suma rakk muy dugg si kàmb ma koy seetaan ëllëg su rëccu di am man la ñu njëkk a xool dafay fàtt rëccu moo ko parce que mi ngi liggéey mi ngi si domaine am te mu ngi wu et sans regret mm-hmm. su ma ko xoolee chaque fois damay fier parce que au moins xeex naa pour mu bañ a def erreur boobu <clears throat> loolu nag du ma ko du ma ko bañal suma suma suma frère di ko di ko nangul samay doom je refuse et comment tu fais avec te courent après mais <laughs> xanaa di leen defal li ñu soxla di leen di leen jouer di leen feccal di leen woyal loolu rek ñi nga xamante ni dañoo ne dañuy sàkku Carlou def leen soxna laa wax di ci daw Safa ak Marwa nag mais loolu yow foo ko yëgee man yëguma loolu. mais euh, est-ce que Carlou est un polygame mën nañu xaar un de ces quatre euh, nga am deuxième femme. wutal ñaaña raq. ya <laughs> ñaañ màggatul de. <laughs> xam nañ fi nga taxawee yow. non non non euh, taxawu ma fenn damay wax rek li nga xamante ni moom laa xam. d'accord affaire monogame loolu yëpp yàlla la loolu Euh, votre femme elle est jalouse. comme toutes les femmes. yow na cee jot ak yow di la fiiree ba voilà ngeen am euh, benn xuloo bu ndaw. Ah, bien sûr. comme ah, bien sûr. fiir du fiir sens bi ñu ko jox ak fiir sens bi mu am chaque fois nga dégg ñu ne fiiruma damay bañ ku ma fiir mooy bañ ku la nga teg ko raxas ko ba set mu naan da ngay mer il nga raxasaat ko. Mhm. wala nga noo ko sénégalaisement ñu ko wax nit ñi xamee kaas <laughs> bu dee bu dee jigéen tamit euh, buggoo buggoo kenn kenn jege sa soxna. Mhm. bu dee góor buggoo kenn jege sa sëriñ. loolu dafa leer. loolu c'est humain. yàlla suñu bopp yàlla si boppam moo gën a fiir kap bu dee ku ko bokkale. alors Carlou on va terminer avec les projets en ce moment ci lan nga nekk lan moo lan moo nar a nekk prochainement des nouvelles te concernant. waaw maa ngi maa ngi studio confiné. Mhm. Hmm? de confinement bi. you know uh, my Eden Record ngi Somone uh, nekk fii liggéey ak bassiste bassiste euh, Omar Pène Papis donc ñu ngi confiné wu depuis trois quatre mois. Mhm. ñu liggéey ci album boo xamante ni ñu koy liggéey. beneen si la beneen genre comme j'ai l'habitude de dul dire beneen base yeneen style. maintenant di xaar affaire yi jàll ñu projet amoon nañ ci benn tournée États-Unis bu ñu cancel amoon nañu tournée euh, Europe bu ñu Mhm. loolu yëpp lu métti la yoo xamante ni waxuma la mooy li ma la wax léegi li ngay perte financièrement mais li ngay toog doo jouer xam nga ku am deux tournées Amérique ak Europe benn weer même pas weer benn week-end ñu la annulé nañu lépp juste parce que lii moo xew ça fait mal très très très difficile à se mhm. euh, on a une date bu ñu annoncé gum juste cette date Paris incha allah le vingt et novembre ak euh, Mokhtar Mm-hmm. maintenant di waajal loolu di di communiquer si diaspora bi si ñi doon laaj Carlou depuis quand quest que lay jouer à Paris date mm-hmm. baa ngi noonu et am na yeneen yu ñuy def ak euh, euh, le président aussi hmm, waa MEDES mm-hmm. et aussi di ñëw yooyu yëpp war nañ ci liggéey ak euh, MEDES donc ñuy xaar yooyu ak yeneen projet yoo xamante ni fii ñu koy dugg ci réew mi ak bitim réew incha allah. incha allah alors euh, c'était un grand plaisir ñu bàyyi la lan ngay tàggoo ñi nga xamante ni ñoo la doon teewlu depuis seize heures sur la rajo ma FM. waaw wax leen rek nekk plaisir la pour man partager ñoom émission bi j'espère que euh, lépp lu ñu bëggoon mu leer wax nañ ko. et que j'espère que ñu ñuy bàyyi xel ci aussi conseils yi nga xam ne joxe nan ko ci njëlbeen bi mooy respecté te xam ne virus bi ñu ngi fi ba léegi ñu bañ a bàyyeeku. Mhm. bu ñu bëggee teel a gisaat seen artistes yi sur mën a déplacé wu jël air échanger partager des moments ak seen ay proches ñu gën a fas euh, respecté barrières yi bu ñu bëggee xale yi teel delluwaat école bu ñu bëggee ñu ci teel delluwaat ci yenn place yi nga xamante ne nii. Euh, Covid bi empêché na nit ñu taxawaat fa wala ci liggéey ñu ñu gën a respecté barrières yàlla jàppale ko incha allah. jaajëf sunu Baye Fall bi borom Café Touba gi. kontaanoon nañu lool ñu jox la ñu dig la daje incha allah très prochainement ah. incha allah incha allah bien des choses alors Anna. tàggoon. merci de nous avoir accordé de votre temps. Euh, c'était Karloudi à l'instant sur la radio du bonheur. Amis auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute depuis 16 heures. On se donne rendez inchallah la semaine prochaine ak beneen artiste moo xam feneen fu mu nekk ci showbiz sénégalais bi. Alors on se quitte en toute beauté avec un son bien naturellement de Karloudi. Merci et très bon week chez vous.